leen ma seen noppub diir ma tàbbal ci bànneex bépp coono bu ngeen doon dund ci wàllu yónnee ak jot xaalis jeex na takk ak tab tab seen mooy application bi mujj juddu waaye xéwe la lool ci askan wi rawatina yéen ñi nekkee Europe Canada ba États-Unis yaakaar naa nekk ci Touba ku nekk xàmme ko muy def liggéey bu am solo tey bi nga ñëwee Tiwaawan ak Touba yaakaar naa Touba ak Tiwaawan benn maam la la dugg Touba moo dugg Tiwaawan tey yëg-yëg bi lan la. waaw yëg xalaat bëgg rek. Euh, ñëw ci taalibe Seydil xaaji Malick bii nga xam ni euh, doy na sëkk di def teraanga sa wajur mi la ko liggéeyal toog euh, di ko yor kurusam di ko seere bëgg nag ñëwal njabootu Sëñ Tuubaa gépp Abdou Aziz day def lu am solo lii muy def Tiwaawoon exemple la ci ndaw ñi dama wax ni jeune Tidiane yi am nañ exemple nañ xool Abdou Aziz exemple la gis nga àddina fu yàq nit du yaakaaree fen dara day fexe ba marqué fa empreinte am. Aziz rek nekkul opérateur économique ci Tidjane yi. Aziz rek nekkul directeur société Tidjane yi. waaye gëm gum gëm Cheikh Cheikh Seydil Hadji Malick ak xam ni sëñ Abdou Al Amin moo ko tudd tuddee ko boppam yaakaar ko waajuram bi yar ko ci tàggat ko ci dégg naa mu doon ne ko ci ay maamam. waaye fa mu àgg nag tey xam naa ni vision maamam la ak ñaani maamam ya kon nag ñu ngi bëgg di ñëwal njabootu sëñ Tuubaa gépp ñëpp fi ñëw Abdou Aziz dafay def lu am solo taalibe dëgg sëriñam mën na koo tiitaroo taalibe mën naa tiitaroo sëriñam moom nag ab sëriñam mën na koo tiitaroo ndax du ñëwee Touba dafay ñëw mel ni njaboot Seydi Hadji Malick waaye ñëwal fa njaboot Seydi Hadji Malick gépp ñëwee fa ay teraanga ak ay nag kon nag bis bi looloo waral ñu dagg suñu yitte dikk ndokkeel ko ci bis bi exemplaire la ci taalibe yëpp taalibe yëpp du defoon ni Aziz doo dégg mukk murit bu ëppal ak tijaan bu ëppal ak xaadir bu ëppal ak laayeen bu ëppal Aziz al ixsaan li ñuy wax al ixsaan da ko def innamal mu'minuuna ixwa fa asiloo bayna axwaykum wa taqullaha laalakum turhamun dafa am solo nag euh, fii tey euh, ñu fekk fi waajuram te waajur euh, yonent bi nee na su jaamu keneen daganoon sa ñaari waajur lay doon yàlla wax ixsaanan kon nag su fekkee ni dañoo toog waajuram muy seere lii di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko seere yor kursam di ko seere loolu résultat am la moom moom résultat am la waajuram moo liggéey lii kon ñoom Abdou Aziz seen liggéey ca kanam ci seenu njaboot yàlla na yàlla guddal fanam te wéral ko bëgg nañ bu baax buur dañoo wax ni daal Touba ña taalibe sëñ Touba yëpp ñu ngi sant Abdou Aziz. bu ñu nee Touba ni Tiwaawoon ci wàllu maam xam nga liñ bokk pour nga xamalaat ko xale yi ñi nga xamante ni ñu ngi ci diine ji ñu ngi ci tereexe mais duñu xam lañ demee lañ bokk. waa Touba ak Tiwaawoon liñ bokk dafa bari. maam Maharam fukki doom benn la am. Amadou Farimata ak Thierno Farimata Amadou Soxna Bousso Seer Soxna Bousso Amadou Xaru Diop Mame Balaye sa Ibrahima Awañang Soxna Mbacke Awañang Assa Mbacke Awañang Seynab Mbacke ab sa Ndiaye ñu ñooy fukki doom yi Mame Maram nag moo demaat cekkeenu sam-sam jël fa Joosi Seck kër nijaayam am ca Mati Joosi Xëri Joosi ak Ahmadou Joosi Mati Joosi lañ jox tafsir dem ba bu na moo am ci Ousmane Mati Basine Mati Amadou Mati Ousmane Mati moo jur Seydil Hadji Malick Amadou Mati ak njabootam ngi fii Tiwaawan Basine Mati moo jur Xaalimor Basine Ndiaye ñooñu ci mëti Mbàkke mi Cerno Farimata lañ bàyyi ko waaye xëri Mbàkke mi bokkal ndey ak baay nag moo jur Dame Seynabou ak Samba Thiam Dame Seynabou moo jur sëñ Mor Penda mu jur sëñ Modou Mor mu jur muy maami sëñ Fallou mii nekk ak Aziz kon hasard boolewu leen euh, Mamba lay sa mi caatu Mame Maram moom meñ mam Mor Sali meñ sëñ Touba bokkaat nañ ci feneen foo xam ni meneen mbokk la mooy na Bassine ak Koddu Bassine ak Mané Bassine ñoo bokk ndey bay baay Bouna Bassine moo jur Tafsir Demba Bouna mu jur Mame Ousmane mu jur Seydi Hadji Malick Abdou Bassine moo jur Ndiaga Koddu Ñang mu jur Safiyatu Ñang mu jur alaaji am Mansour alaaji Habib alaaji Abdou Maane Bassine moo jur Seydi Dam jur Aysa ak Sadio Yaasin Aysa moo jur Mambal Aysa Mamour Sali Serigne Touba Yaasin a Yaasin a jur euh, euh, Kanni Saw mu jur Anta Ndiaye Kanni mu jur Maam Cheikh Anta sama turandoo liñ bokk bari lool sëñ Abdou Al Amin mii nga xam ni mooy turandoo Abdou Aziz di sëriñam mook sama sëriñ ñoo bokkaat maam ndax sëñ Abdou Aziz Al Amin soxna asukan mi ko jur Abdoulaye Walimata Xumma Ba moo ko jur Abdoulaye Walimata Xumma ak Maamu Nderi Ba ak Maba Jaxu mi woote woon jihaad ci Saalum ñoo bokk benn baay njóogu ba njóogu paatee leen jur yoro jom kuli tengala Maba Jaxu nag ku ne xamoon na ne moo woote woon maam Ousmane wuy ji euh, maam Morane Sali wuy ji sëñ Bousso bi wuy ji ñëpp wuy ji euh, kooku nag rakkam Abdoulaye Matu Xuma mooy maam yi sëñ Abdoulaye Amine ak Serigne Cheikh Tidiane si ak Serigne Umu Xayri maamu ndéer mi bokk ak Ablaye Matu Xuma benn baay moo jur Maram Ba mu jur Soxna Asu Mbàkke mu jur Sëriñ Amidun suñu sëriñ kon liñ bokkaat bari na lool mm. buur siin ku ma doofeen mu seere woon sëñ Tuubaa mooy maam yi sëñ Abdou Al Amin Linguère Sall bi Diouf doomi buur siin ku ma doofeen la moom lañ jox Ablaye Matu Xuma moom lañ jox Maba mu jox ko rakkam Ablaye Matu Xuma mu am ci Maram Salbe Ba Maram Salbe Ba yaayam mooy doomi buur siin ku ma doofeen mu seere woon sëñ Tuubaa kon sëñ Abdou Al Amin mooy borom judd bu rëy bi mooy borom jikko ju rafet ji mooy ki nga xam ne Tiwaawoon accès fii nag ñaanu maam ya la waaye liggéey na ci nag ñaan gi dafa mel ni ci moom la nangoo. kenn mënut a dugg Tiwaawan te gisoo jëfam. yàlla yàlla yokk yërmande ci moom. yàlla yeesal yërmande ci moom yàlla taas ci barkeem bàyyi fi xalifaam Serigne Babacar Sy Aïda ak Moustapha Al Amin mi nga xam ne téye na ndonal maamam. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala